di am gàcce lool tey ak naqar ci lii ma gis mu xew ci réew mi te dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg a nit benn bu jëkk bi ma adressé ko directement président de la république monsieur Macky Sall ma bëgg mu delloo ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu xamoon ni fii la ñuy mujj duñu ko fi teg li may wax nag ça n'engage que moi mm-hmm. te lu ma ci góobe kar ko nëbbatuwuma làqatuwuma mm-hmm. bu ñu xamoon ni fii lay mujjeeg réew mi duñu ko fi teg mm-hmm. ma bëgg mu delloo ci xelam te xam ni léppay jeex te ku ko ni woon dina fi toog 2012 ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëral nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yu mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg si fii tey mës naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenté ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla ku yàlla ne di toog ci réew mi di nga fi toog waaye boobaak léegi ma di ko suivre amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag lañu ñu woon ñi jàppoon ni comme ndaw la luy door a yegg juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne est-ce que malheureusement tel n'est pas président delloosil sa xel te nga seet sa entourage yi fi xew bare na te nguuru yàlla rek a dul jeex bis dina ñëw di nga fi génn ni ci lii wala ci nale mhm. li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jële la fi mooy troisième mandat yow yaa taxawoon ci devant devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni bii ngay jeexale ñu dem ba ci biir feebaru nguur dugg la gis nañu la xew ci suñu voisins yi duma tudd tur di tooñ bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fiiñoo ñoo yem yaa ngi ci erreur monumentale delloo si sa xel ñun ànduñoo ñoo yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn. te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam. teg loxoom ci dënnam ni mën a diw. looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi. waaye ñu nag yow nag. dootuñu noppeeti incha allahu taala. ci kattanu yàlla ak baaxam. jërëjëf façon bu ne ñu ngi koy jéem. malheureusement. dégguloo ñu. lii xew nag. li ma ciy indi man li ma ci gën a metti du sax affaire Sonko dëgg la metti na. Mm-hmm. ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax. Mm-hmm. te li ma jot a dégg yëpp ci média bi. dégg ko ci ay nit dégg déglu ko ci ay suuf yoo xam ni wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à mm-hmm. waaye nag Olof Njaay nee na kuy gasal sa noonu pax bu mu xóot. ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg. fii lu ne xew na fa. yàlla ni patt rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet. dafa dënniir lu rek. président dello sil sa xel. président dello sil sa xel da nga seetaat sa entourage. loolu benn la. li ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ne ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa. Hmm. askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul. lépp luy kontaan loo président rek ñu nga ca suba ak ngoon guddeeg bëccëg te bu leen fàtte ni deretu nit ñi lañ leen di faye ngeen koy lekk dërëm bu ngeen ci lekk billaahi wa yi ëllëg a gi ñëw bu ngeen duggee bin baan bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj na yow ma yawma idin anin naim alquran la hmm. yéen gëmatu leen yàlla ñu si bare bare boobu hmm. wala bu ñu ko gëmee yaakaar nañ ni loolu yëpp ay caaxaan la hmm. sama mag Moustapha Niasse mo nek président assemblée nationale. Hmm. depuis le temps mi ci ci ay pouvoir depuis le temps Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall ñew ma bëggoon momi tam lepp lu ñu fa indi diko woté en tant que mag mu fekkee lu bare te yàlla defal ko teraanga lepp lu ko wóor ni lii ay complot la mu bañ caa dugg. te des ak yàlla. Hmm. te xamni yalla yàlla la fi nekkal.

yonent bi dafa waxoon bu yàgg ni attekat yëpp ñett rek lañu ñaar ñëpp safara la ñu jëm rikkuwaay na ngeen bàyyi wax jooju xel te xam ni yàlla du waxantu ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba néewal ko doole dugal ko ci kaso yaakaar ni rëcc ngeen xamu leen li xaw kon delloo si leen seen xel man dama bokk ci ñi ñi gëm ni fii ci senegal du ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu intègre am jikko yu baax a baax a baax mm-hmm. ragal yàlla lool te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d'accordul wane ni d'accorduñu ci waaye am na ñoo xam ni nag lu ñu leen indil rek ñu ànd ceeg moom mm-hmm. def leen ndànk mm-hmm. delloo si leen seen xel delloo si leen seen sago beneen bi ci des moo di le peuple sénégalais ñoom laay waxanteel di di leen di leen di leen massawu coono te di leen wax ni yàlla jeexul ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida alchaabu yowman araada alxayaata fala budda an yastajiba alqadar fala budda lilleyli an yanjali fala budda lilqaydi an yankasir kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dog mbuumu njaam ji ñu ñu bëgg a takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne ñëpp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ni dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am oto ëpp naa lakk kooku nañu jëflanteeg ñi ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mii santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara njaay sénégal njaay la wax ñun ñëpp ay doomu senegal lañu ay doomu réew mi lañu bii daal laa ni woon dinaa ci sànni sama kàddu ñu delloo ci xel lii ëpp na ñaaw na am na ñoo xam ne ku leen woon ci sénégal wax leen bii daañu ko weddi te man dama bokkoon ci ngeen baal ma ci ñu contrôle Ablaye Wade rëccu naa ko nag maa ngi koy jéggalu bu baax moom waaw lii daal laa amoon ci lu may wax encore une fois di jéggalu ci kàddu gi la ma ca jublu woon du vexé kenn waaye itamit boo dee nit di xam li xew ci réew mi te bokk ci réew mi nga gis loo xam ne mi ngi am te sànni woo ca sa kàddu kenn yeesu la allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allah